ولي من زادها الفجارة إلى الجنان العمر لن فيا ولي من زهزه الفجارة إلى الجنان العمر لن وجارا إن ابن عبد الله قد لم يرد في الخلق مدى ولا فيهم يرد براعة المختار في الأخلاق يغتسل بها هدى القلاب صلاة ربي بسلام السمد على وسيلتي له محمد فقد يا واسع يا مريحي سجني وكنت لي بتسريحي رديت عني ورضيت عنك يا من إلي جاء جميل منك أورثني مواهب القياس يا من كف دور في قياسي لك توجهت بشكر صدرا منك إليك مطمحوت الكدرا خدمة خير الناس بالجناس وغيري بك مهد أدناسي رد الذي أمجهتي في الأذل من المكاره لقتلي من عذل رد الذي أم جهادي في الأذل من المكاره لقتلي من عذل إلى يوم غير انتهاء قدام مسرة وبالمنال جتا دفتني سرا فجارا إلى سواي محرما من جارا جزرتني سر النبل فجارا إلى سواي محرما من جارا والجزاء والثواب والأجر وما بتعبه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 xafidahumullahu taala wa raam kaddu yi nag bi ci jiitu mooy sant yàlla bii nu yàlla mayee wér ak man tal ba ñu mën a jooxe ndigal li nga xam ne ci la ñu bàyyi koo démb muy matuk weeru koor yàlla bu mu nekk suñu wutu koor lañ ca jot a def lépp mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te dencoon na ko fu yàqu yekk sëriñ baa ngi nuy ndokkeel di ñu dénk nag ay kàddu di nu xamal ne bu yàggutoo ñu ngi doon séentu weeru koor mi ngi nii duñu tàgg la muy tegtale nag mooy lu nuyoo rek tàggoon lépp loo séen bopp ba léegi tey cat la romb la su dee loo xam ne mën nga caa yóbbante nanga gaaw ndax du nekk la muy tegtale ba tey mooy wane ne am na weer mat sëkk woo xam ni yées na ci sunu dund bis ni ki nañu fexe ba gan googu fi ñëwoon di weeru koor gan moom mënees na ko tere lu nekk ba mu des dem nettali lam fa fekk buy nettali yàlla nañu nettali lépp di yiw yonent bi nag sallallahu alayhi moo daan ñaan bu weeru koor di dem naan allahuma la tajalhu axira iya fa in jaaltahu fajal ni marxuman mooy yàlla bu mu doon suñu mujj koor ñi nga xam ne yàlla dogal na li muy dogal ci ñoom ba noppi yërëm te ñun ñi fi desandi yàlla bu mu ñu xañ yoolu weeru koor bi kàddu ñaareel gi dénkaane Cheikh Mahamadul Fadal la woon daana wax ci làmmiñu boppam ba yàgg waxukaay ñëw mu di ko ca waxlu muy ñett muy ñu maase ci tuub di sàkk sarax tey balonte xaq tuub nag su weeru koor jàllee nga xamne lay dem dem na kenn ku ne xamna bopam ne futti ko wat ci ñama ko wara wax xamne ndigalu suñu borom mo fa nekkon waye ndigalu suñu borom day wéy ni weeru koor yu wey kon bok tuub suñu borom moko santale ci alquran توبوا إلى الله توبة نصوحا وatuubu ila llahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun mooy nit ki xoolaat gannaawam la ko ca wóor ne mënoon naa gën a jag mu fas yéene rëcc ko te du ca tegaat tànkam moom yàlla ñu ko yàlla jàppandalal bu kenn def loo xam ne nag ci ay rëcc-rëcc moo xam mu jublu ko ca wala jubluwu ko ca ba defee ne yàlla du ko jéggal ahakay ku tuub yàlla jéggal ko قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله ذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم chaque sarax suñu borom mi ngi ñuy wax ci alquran ne ku jot ci bataaxalu yonent bi ne yàllaa ko yónni na ko gëm te di dimbale ku mu war a dimbale ndax lii ñu ñu dimbale ñi ñu war a dimbale kat suñu leen ci dimbale wutit ëllëg si bi dañ koy saam seddale ko suñ ko naaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير dellu wax ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm gu wér dee leen dimbale ñi ngeen war a dimbale ci seen teyu bakkan يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفع كن بوك سك صرخ أه صرخ يعفنا dem na ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dem na ba ci lii nit kiy joxe sax waa këram di ko dunde mën na caa am yoolub joxe ak yoolub saraxe ba ca dolliku te moom lay jeexale mooy balonte xaq balonte xaq suñu borom nee na ku bëgg ñu di ko baal nay bale fal wal yaafu wal yasfaxu alaa tuxibuuna an yaxfira allahu lakum fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah kon boog kenn ku ci nekk na xool moroomam bu fekkee jege na ko ne ko jàpp loxo te mu dëggu ci moom mu ne ko baal ma bu fekkee xam na ko ak bu ko xamut lépp ndax mën naa juum wax ci ab deram loo xam ne koo ko yëgu ko te yàlla dara du rëcc ci moom yàlla noonu yàlla boole jéggal sëriñ bi nag nee na fi mu koy tëje mooy mi ngi naanal sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom. may ko ak wér te yàggal ko fi te àggaleel ko naalam yépp te saa bu geesoo nag gis ñu ci gannaawam sëriñ bi neena na mi ngi ñaan ñu ñaanal ko sëriñ Abou Baraka moom Cheikh Mahmoudou Fadal mi nga xam ne ci ay lay waxe moom suñu borom bàyyi ko fi ba àggaleel ko ay naalam te ñu ñëpp ñu tapp ci ginnaawam di ñaan mbooloo mi yëpp itam ñu ñaanal suñu Abdou Fatah mii nga xam ne moo fi toog suñu borom yàggal ko fi ba mu yàgg fee nekkal sëriñ bi moom mbooleem bokkam yi nga xam ne ñoom la fi dàndal di ñaanal jullit yëpp ci réew mi ak bitim réew suñu borom dolli jàmm ji te def naataange ci réew mi te nawet bi nga xam ne moom la ñuy jóge sëriñ bi nee na mi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa a mu doon nawet bu teel bu barkeel teñ muurloo ko ak mbooleem liggéey bu nit mën a def gannaaw bu jige ci julli gi suñu borom defal ko ca barke ak yaatal ba kum ca bëgg a dimbali mu mën la caa dimbali. di ñaan jàmm ci réew mi bu baax a baax a baax a baax am na fi waaye ne ko yàlla gën a dolli di koo ñaan itam fépp fu ab jullit nekk ak fépp fu doom aadama nekk. di fàttaliku ci ñaan itam bu baax a baax a baax suñu bokk yi nga xam ne dañu fee bokkoon ñoom ñoom nekk daaw te seen yaafus yóbbuwu leen sëriñ bi nee na na ñëpp ñaan kenn ku nekk xam-xam ak ba nga xamut suñu borom dolli ci ñoom. ndax kat am na si ñooñ fii lañu ñu bokkoon ak ñun nekk daaw walla feneen fekke bisub tey te fekke wuñ ko ren ñun ñii fi des nag du suñu njàmbaar du suñu ñawte mbaaxu suñu boroom la yàlla nañu ko fekke déwén te mu ànd ak dal ak sago te suñu kilifa yit suñu borom bàyyi leen fi ndax ñu yomb àndal lañ yomb nañoo ànd andal ni ko wolof di teunk rek dalu len andu mbeut ak bokam nenañ mbeut ci wax wolof na top ñu wax nak ku jaar ci kanam mu ne yaangi fal sama gunoor yi so nek ci pegg mu ne danga ma def morom so le dox ci ginaaw mu ne nga am fa may jokki dalu len yalla len yalla yagal ci njabot gi ci kanam njabot gi te yagal njabot gi seen gannaaw eh, kàddu kaddu la sëñ bi waxoon أه، السلام عليكم ورحمة الله كل عام وأنتم بخير